di la ci vraiment disponibilité bi nga xamante ne mani manifesté nga ko ci suñu invitation bile. asalaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu mbokk auditeurs yëpp yi ñuy déglu euh, di rafetlu jataay bi bu baax di rafetlu aussi faatu invitation bi ñu invité ngir may ñu ñu mën a waxtaanal askan bi si wàllu feebar bi doomu jàngoro euh, jàngoro ji ñuy woowee tuberculose. d'accord. Euh, docteur euh, Yacine euh, tuberculose nekk na jàngoro boo xamante ne infection moo koy joxe te itamit ci ay xibaar nee nañu bokk na ci jàngoro boo xamante ne li muy faat ci doomu aadama jéggi na dayo tey boo doon xam le jàngoro bii di tuberculose lan la wundoo ngir auditeurs yi ñuy déglu mën a xam lii di tuberculose lan mooy tuberculose. Euh, comme ni nga ko waxee rek infection la te bu ñuy wax infection ci feebar mooy am na doomu jàngoro bu koy joxe. Euh, tuberculose euh, dañu am seetlu ni askan bi bi ñu bëri dañoo yaakaar ni feebar la boo xam ne amatul waaye mu ngi fii. Euh, lu tax ñu naan mu ngi fii ndax xëy na ñëpp xam nañ organisation mondiale de la santé ñu koy woowee OMS at bu jot day xayma. Euh, nit yu am tuberculose ci àdduna mm-hmm. te ci xayma bi rapport bu mujj génn 2021 wane na ni lu tolloo fukki million ci doomu aadama am nañ tuberculose ci àdduna bi mm-hmm. te ci fukki million yooyu benn million ak genn wàll feebar bi faagaagal na leen yóbbu na seen bakkan mm-hmm. ci loolu toujours OMS wane na ni ba léegi ci àdduna ak lu ñuy dégg ci feebar yépp yu doomu jàngoro di joxe tuberculose lu muy rey benn doomu jàngoro reyu ko mm-hmm. loolu rek misaal la pour wane ni feebar bi dañoo yaakaar ne amul waaye feebar bu garaaw la ndax mu ngi faagaagal doomu aadama yi fii ci àdduna mm-hmm. te bu ñu néewee fii suñ dëkk Sénégal euh, at bu jot dinañ génne lu toll ci fukki junne ak lu teg ci ay doomu aadama yu yor doomu jàngoro tuberculose. suñu xaymaa aussi ak bii ñu génn lu ëpp ñeenti téeméeri nit ñàkk nañ ci seen bakkan. Mm-hmm. waaw loolu rek war naa wane ni tuberculose du lu ndaw. Mm-hmm. te dañ see war a jóg ni état Sénégal euh, sànne lancé appel. Mm-hmm. pour que ñëpp euh, que mu nekk ñu nekk ci système de santé bi. ak ñu nekk ci biir askan bi ñëpp jàpp ci ñu mën a xeex doomu jàngoro bi ndax. luy rayam moom def naa ñëpp dañ cee war a jóg. Mhm. Euh, euh, lan mooy euh, jur tuberculose lan mooy cause bi lan moo koy joxe. waa tuberculose doo feebar la boo xamante ni dañ koy wàllante. Mhm. Ah, te wàll bi si misaal nirool na tuuti bu bi ñëpp ragal te mu nekk fi muy Covid 19. Mhm. dañoo niroo lool si ay. symptôme ñu ñu muy euh, misaal niroo aussi si niñ koy wàllante mm-hmm. tuberculose ñu ngi koy wàllante si jaww ji maanaam ki yor tuberculose nga nekk ak moom si benn euh, espace mu saqat t-shirt li wala yenn saay sax suy wax rek su fekkee doomu jàngoro bi dafa yàgg si moom di développé wu lu bëri si wax rek mm-hmm. da koy sànni ci jaww ji mu ànd ak air bi ñuy noyyi donc ki ko noyyi mën nañ jàpp ni doomu jàngoro bi dugg na si yaramam. Mhm. moom lañ naan infecté na ko. Mhm. wante nekkul képp ku mu dugg sa yaram rek di nga def feebar bi. Mhm. waaw ndax seetlu nañ koo xamante ni sa sa kàttan dëgër na euh, am nga défense yu doy si sa yaram feebar bi mën na bañ a développé waaye lu si ëpp. ñi nga xamante ni daal seen défense wàññeeku na moom dañuy def feebar bi. Mm-hmm. te suñ si jugul faj leen ni ñu leen war a fajee teel ko génne faj leen mën na leen faagaagal. Mm-hmm. Euh, justement docteur ba xam dafa am euh, benn cible boo xamante ne jàngoro bi moom lay gën a laal maanaam euh, ban ban ban tranche d'âge lay lay laal wala tuberculose amul tranche dage waa waaw seetlu nañ day laal ñëpp ah. mm-hmm. day laal ñëpp quel soit l'âge wante seetlu nañ jeunes yi la gën a sonal. Mm-hmm. Ah, jeunes yi surtout ñi nga xamante ni dañu toll ci seen diggu ndënd suñu mënee waxee noonu mm-hmm. mooy ñu nekk entre quinze ak quarante cinq ans mm-hmm. mooy ñi nga xamante ni jàpp nañ sax dëkk bu bëgg développé wu ci ci ñooñu ngay sukkandiku pour développer sa dëkk ndax ñëpp xam nañ fii booy xool ñiy liggéey entre ñi am quinze ans quarante cinq jàpp soixante ans. Mhm. Hmm? donc moom la ñu woowee tranche d'âge économiquement active moo tax ñu naan tuberculose bu bëri baaxul si dëkk sax ndax dëkk bu mu nekk du développé wu nu mu war a développé mhm. woo. Mhm. waaw. am ay xibaar yoo xamante ne dañuy wax ne lu mel ni lii di obésité wala tux bu bëri aussi da koy faral daal di def ndax loolu xibaar yu wér la docteur. waaw si li ñu xayma euh, peut-être tux bu bëri mën na ko waral ah, peut moins. obésité maanaam yaram bu bëri si nit mhm, mhm. li ñu gën a seetlu daal mooy lépp luy feebar boo xamante ne day wàññi défense yaram bi day favoriser tuberculose mhm. maanaam infection VIH euh, diabète ah, euh, xale yi nga xamante ni seen yaram dafa nasax luñ lekk bu baax ñu koy wax malnutrition ah, mooy ngeen jéggal ma nag xaw ma terme bi si si wolof waaye mooy xale yi nga xam ne seen lekk demeewul noonu ba ñuy jeex kii mm-hmm. ah, waaw mm-hmm. donc defe naa euh, ñooñu ñëpp daal feebar bi sonal na leen mm-hmm. waaw ñoom la gën a sonal et bu dul ñooñu tamit euh, ay étude yu ñu def fii si dëkk bi wane na ne aussi am na yeneen nit yoo xamante ni xëy na du seen défense yaram sax mais le fait que ñu nekk di dund si yenn condition wala ñuy liggéey si yenn condition yi tax na gën nañ exposé que ñeneen ñu nekk ci société bi mhm. ñoom lañuy wax les personnes à risque mhm. ah, maanaam ki nga xamante ni premier groupe bi ñu ci seetlu mooy ñi dëkk ak ñi am feebar bi ñoom ñoom la ñuy woowee les sujets contacts mhm. moo tax am na programme boo xamante ne tëral nañ ko pour gérer ñooñu ñuy woowee sujet contact pour ñu bañ xam nañ xalaat nañ ni comme dañu dëkk ak ñi feebar ñi wàll nañ leen mais ñu def tout pour ñu bañ a développer feebar bi bañ a euh, tër mu bañ leen tëral. Mm-hmm. Hmm? Euh, euh, laata ñuy romb programme boobu ñu buggoon rek nga développer ko ngir auditeurs yi ñuy déglu gën ko xam programme boobu ndax dafa nekk benn traitement spécifique ak tamit comment est-ce que ça se waaw ñi nga xam dañu dëkkal ñu ñu feebar ñi programme bi ñu def ñoom ñu ngi koy woowee gestion des sujets contacts. li ñu tëral lu yàgg la nag du lu bees. Mhm. ah parce que mën nañ jàpp ni depuis 2007 ministère de la santé mu ngi gestu ñooñu noonu dëkk ñu ñu feebar ñi wante daf ko yemale woon ci xale yi am ba juróomi at. Mhm. waaye depuis daaw euh, dañ ko gën a yaatal pour mu laal képp koo xamante ni da nga ku yor feebaru tuberculose buy wàlle. Mhm. Hmm? quel que soit l'âge mu nekk xale wala mu nekk mag. am na ay traitement yoo xamante ne léegi tëj nañ ko et c'est gratuit euh, bis bu ñu demee ba gis ni rek benn nit am na tuberculose kiy joxe garab yi dafay lëkkaloog agent communautaire yi mm-hmm. ñu dem ci këru kooku def enquête ñu répertorier leen def seen liste yóbbu leen ci structure de santé yi évaluer leen képp koo xamante ne yoroo feebar bi ñu jox la garab yooyu bu dee da nga yor feebar bi nañu defal la traitement complet wu tuberculose. Mm-hmm. waaw benn évaluation la daal bu ñuy def comme yaa ngi dëkk ki ki feebar. est-ce que fi mu nekk nii yaa ngi am feebar bi su dee da ko am ñu faj la faju tuberculose su fekkee amoon ko ñu defal la prévention. Mhm. waaw te garab yooyu yëpp c'est gratuit kenn du fay. d'accord waaw euh, docteur euh, ñu bëri dañuy wax ne yéen sax ci seen spot publicitaire yi dañuy farataal di déglu sëkkët su tax si sëkkët su tax si mu mel ni boobu nekk na ci yi nga xamante ne moom moo di signe principal yi tuberculose ak sëkkët su tax daanaka dafa mel ni mënuñu def euh, différence bi tey bu weesoo sëkkët boobu ndax am na ay signes signes yoo xamante ne moom mooy nekk ay signes yoo xamante ne vraiment dafay alarmer doomu aadama bi ba mu war a xam ne ah man kat war naa seeti ko docteur. waaw waaw Fatou euh, lu tax ñu ñu insister ci saqat bi. Mm-hmm. dafa fekk ni premier signe buy manifesté wu ci bu nit amee tuberculose saqat la. Mm-hmm. te saqat bi li ko euh, gën a caractériser mooy day nekk saqat boo xamante ne day yàgg waaw. lu saqatu benn fan wala ñaar wala gën saa néew dina def fukki fan ak juróom looloo tax ñu accès suñu communication si loolu mhm. lu ko waral mooy dafa bëri forme tuberculose yu ñu mën a am ndax tuberculose doomu jàngoro bi bu xasee ba dugg si yaram bi day topp deret bi fu ne mën na fa développé wu mhm. et fépp fu mu développé mën na fa def feebar bi wante euh, li ñu seetsu seetlu muy Sénégal muy si àdduna bi yépp forme pulmonaire bi mooy bi nekk ci xëtër yi moo gën a bëri te forme boobu euh, nit ki su ko amee si signes yi njëkk saqat la ñëpp xam nañu xëtër moom su feebaree lu si ëpp mhm. saqat lay njëkk a manifesté woo mhm. waaw looloo indi ñuy accès communication bi si loolu mhm. ndax boo seetloo euh, fii si Sénégal suñu amee téeméeri nit yu am wala fukki nit yu am tuberculose juróom-ñett ya forme boobu la ñuy am. Mhm. boo xamante ne si xëtër yi la. Mhm. te loolu tam mën nañ ko mën nañ ko comprendre facilement ndax doomu jàngoro bi dafa bëgg oxygène. Hmm? air bi lay topp wax naa léegi wàllante bi si air bi la. Mhm. suy dugg si yaram bi tam fi ëpp air fa lay nekk. pour mën di di développer wu voilà loolu moo tax euh, nu muy toog foofu di développer moo tax rapidement dafay def feebar foofu mhm. moo tax ñu mu mu bëre forme boobu mhm. mais am na yeneen forme mhm. léeg-léeg mu topp deret bi génn xëtër yi fu ne mën na fa nag manifester wu fépp fépp ah, mën na lu si ëpp dañuy gis même si yax yàqu diggu ginnaaw ah, ñu koy wax mal de pot avec ay déformation wala yooyu ah, dina dina topp euh, lépp luy luy cër si yaram bi ah. Mhm. parfois am na ay forme hépatique ay forme vraiment fépp fu fu deret di jaar rek mën na fa mën na fa développé wu. Mhm. waaye li si nekk rek mooy forme bu mu mënti nekk. Mhm. ay garab ñu ngi fii si dëkk bi te garab yëpp def efficace. ay garab yu ñu certifié la. te vraiment état Sénégal def na effort mook partenaire am yi pour que quel que soit forme tuberculose bi nga am ñu faj la fii si système de santé bi. foo dem fii si Sénégal. si district sanitaire yi taux yi dinañ mhm. la fekk bu ñu yorul garab bi tam dinañ la joxañ fan la nga ko war a mën jëlee même si fekkee si secteur privé bi la mhm. ah ndax ñu ngi def ay ay action vraiment pour renforcer collaboration bi ak secteur privé ndax xam nañ ñu bëri dañuy dem aussi si privé bi mhm. di demander ay soins ah waaw donc pour dalal xelu askan bi rek li ñu soxla daal mooy képp koo xam ne seetlu nga sa yaram saqat bi bëri Euh, bu dul saqat mën na nekk yeneen signe ah, yu mel na yaram buy tàng mhm. surtout guddi gi mhm. ah, yaram buy niis yaram buy jeex appétit bu wàññeeku ah, bu dee seetlu nga yooyu mu ngi nekk ak yow commencé di def fukki fan ak juróom ñu ngi ñaan nga dem mhm. ci structure de santé bu la gën a jege boo demee nga wax ñu saytu la xool bu dee tuberculose lañu faj la nga wér nga nekk sa jàmm. Mhm. waaw loolu vraiment ñu ngi lancé appel bi population bi pour ñuy bàyyi xel ci loolu ñuy bañ a fàtte ni tuberculose mi ngi fi. Mhm. mi ngi ci dëkk bi. Mhm. waaw euh, justement euh, docteur euh, traitement bi dañu bëgg rek nga expliquer ñu traitement bi ci lan lay lay basé wu ak tamit ci ci ci durée naka lañ ñaata lañ ko àpp. waaw traitement tuberculose bëri na façon. Mhm. wax naa ko léegi parce que forme yi dafa bëri. bu dee forme yu simple yi traitement 6 mois la juróom-benn weer am na ay doom yuñ lay jox euh, yenn façon doom yoo xamante ne ñaari weer yu njëkk yi nga koy jël ñu dem ci laboratoire ba saytuwaat su fekkee ñu ngi gis yaa ngi tane. ñu jox la yeneen doo doom mhm. hmm? yoo xam ne di nga ko jël euh, quatre mois yi si ñeenti weer yi siy topp mu def six mois mhm. sinon day am aussi yenn kaay yoo xamante ne mën nañ dépasser six mois hmm? par exemple wax naa fi léegi bu nga xam ne mën na nekk ci yax yi bu yax yi moom at lañ koy lañ koy faj mhm. mooy ñaari weer yooyu ñu lay jox yenn façon comprimé doom yooyu yooyu wan na yeneen yi si topp nag fukki weer la au lieu de quatre mois dix mois la ñuy mottalee traitement bi donc un an la mhm. ah. et su weesoo yooyu tamit am na yeneen façon garab yu fi nekk ah, parce que yenn saay aussi doomu jàngoro bi euh, dafa yàgg ak ñun mhm. day jàng di résisté si garab yi ñuy indi mhm. te am na si ñoo xamante ni nag doomu jàngoro bu leen di dugg garab yi ñuy joxe yu six mois yooyu du leen mën a faj moom la ñuy wax forme résistante yi te ñooñu euh, suñu demee ba ci labo bi ba gis yan forme résistance la ñu am euh, ça dépend ci forme yi ñu génnee ak laboratoire yi mhm. traitement bi mën na nekk juróom ñeenti weer comme mën na nekk ñaar fukki weer mhm. xam nga sorewul ñaari at mhm. voilà et juste rassurer nit ñi que traitement yooyu aussi dañ dañ leen di joxe gratuitement traitement yu marché la dañu efficace parce que mu ngi faj nit yi bu baax ñuy wér mm-hmm. et puis euh, rassurer leen aussi que système santé Sénégal bi vraiment dafa performant ba am nañ lépp loo xamante ne matuwaay la yu ñu soxla pour mën a seet est-ce que nit ki bu bu simple bi lay def wala bu résistant bi lay def mm-hmm. pour que dès le début ñu jox ko traitement bi mu soxla mm-hmm. waaw ndax si euh, depuis Euh, état Sénégal ak ay partenaires am teg nañ fa appareil bi ñuy woowee appareil Ginexpert. Mhm. appareil boobu euh, njëriñ bu njëkk bi mooy dafay tax ñu teel a génne doomu jàngoro bi. parce que en deux heures de temps mën nañu wax kii dafa am tuberculose. wala mhm. amu ko. Mhm. beneen njëriñ bi mooy euh, day permettre ñu mën a teel a xam ni muy waxee tuberculose la wala déet lalay lay waxaale garab bi ngeen nar a jox résister na wala baax na. Mhm. donc pour dire que loolu vraiment avancé bu mag a mag a mag la waaw waaw jéego bu mag la boo xamante ne vraiment am nañ ko ci dépistage tuberculose te suñu demee ba gis résistance boobu am na yeneen test yoo xamante ni tam noonu la gaawee mhm. ah, en deux jours mën nañ ni ah résistance bi mu njëkk a def ci euh, garab bu njëkk bi am na yeneen yu ci yokku ah te yooyu yëpp laboratoire bi nekk biir PNT da koy def gratuitement. Mhm. ah et man damay insister ci gratuitement bi. waa gratuitement parce que parfois nit yi dinañ bëgg dem ñu faj leen mais bu ñu xalaatee dañuy yaakaar ne fay bi. te ñëpp xam day metti parfois waa mën na leen téye donc mhm. vraiment ma rassurer nit yi que ku ci xalaat ne am nga tuberculose demal ci euh, hôpital bi la gën a jege. ñu saytu ko xool ndax moom la bu dee moom ñu yónni la fi nga war a fajoo nga faju te doo fay dara. Mhm. Ah, te faj bi aussi dañ koy saytu am na ah, analyse yu ñuy def. Ah, calendrier la bu ñu teg mhm. pour dire ko vraiment on faju qualité la mhm. hmm? du la jox garab rek bàyyi la ngay naan rek di dem waaw ñi nekk ci centre de santé yeeg yooyu di faj aussi dañ leen tàggat ñoom ñëpp formé nañ leen. Mhm. Ah, pour ñu xam yan garab la ñu war a joxe dosage yi lan la ñu war a surveiller et tout nag la ñuy def ba daal ah egg ba ci cappaandaw ba ñu ne kii wér na. Mhm. waaw donc vraiment rassurer population bi et inviter leen tam ku si yëg sa yaram lu nirool tuberculose maanaam dangay saqat lu yàgg sa yaram day tàng sa yaram day ñaq guddi gi yaa ngi jeex mënul lekkatoo bu baax ah, nga dem ñu set ndax ndax du tuberculose ndax feebar bi mu ngi fi. Mhm. Euh, docteur ci traitement boobu la ñuy descend am na ñoo xamante ne dañuy jàpp six mois wala un un an wala dix mois day yàgg ba moom moo waral sax am na ñoo xamante ne dañuy interrompre seen traitement wala duñ ko defee comme il se doit chaque jour nga war a dem rendez-vous ma lay laaj rek docteur su fekkente ne da nga interrompre so traitement wala suivre ko comme ni la ko médecin bi préconisé yan conséquence la la mën a jural. waa Fatou sa laaj bi am na solo lool am na solo lool ndax mën nañ jàpp traitement bi gudd na mhm. guddul hmm? six mois gudd na guddul guddul ndax bu ñu jàppee euh, tuberculose ak lu mu mën a def ci doomu aadama suñ ko fajul nga faju pendant six mois nga mm-hmm. wér nga tàqalikook feebar bi man damay jàpp ni guddul mm-hmm. ndax am na feebar yoo xamante ne kenn mënu ko faj ba mu wér mm-hmm. tuberculose ñu jàpp ni dañ koy faj ba mu wér donc loolu nekk na première information bu ma bëggoon jàllale euh, te tant que sa sa faj defoo ko nuñ ñu la ko diggalee nga wér dina jafe te ñëpp xam nañ quelque que soit feebar bu mu mënti nekk que mu nekk tuberculose wala beneen feebar soo ko fajul mën na la faagaagal loolu mooy première conséquence mooy doo wér mm-hmm. te feebar boo xam ne wéroo si mën na jël sa bakkan loolu mooy première conséquence boo xam ne vraiment war nañ ko noter mm-hmm. bu ñu jàllee si loolu euh, tuberculose wax naa ko léegi day wàllante ci jaww ji donc ça veut dire ki nga xamante ni dafa war a faju fajuwul day continuer di wàllu waa këram ah bu dee yaay la wala papa la wala doom ak ñi mu dëkkal ak kër gi nii te ñun ñëpp xam nañ Sénégal kër yi nu mu demee. Mm-hmm. donc imaginons mu am benn nit bu nekk ci biir kër gi di sëqat di sànni si air bi nit ñi di yi di saqat ah ak ñi muy bokkal nekk surtout mhm. ah imaginons donc mooy mu ngi wàll di continuer di wasaare si biir këram fu muy naanee ataaya buy dem si match football ya buy dem bureau bu duggee ci kaar yi ah fépp fu mënti dem mu ngi wasaare feebar bi te def naa loolu képp ku responsable ku nekk war nga ko moytu mhm. ah, et eh, eh, eh, chose mooy euh, ki fajuwul euh, am tuberculose jàpp nañ ni mën na wàll jusqu'à dix personnes donc imaginons nit boobu toog fu mu dem mu wàll dix personnes dix personnes lan lay def mhm. donc ne serait-ce que pour ça vraiment cette responsabilité ku nekk war nga tey suñ la nee am nga tuberculose te li nga yor day wàlle nga dem faju pour nga mën a préserver ñi nekk sa wet mhm. euh, beneen conséquence bu ñu mën a wax wax naa ko léegi forme résistante bi mhm. xam nga faj feebar 6 mois ak faj ko juróom-ñeenti weer wala nga faj ko ñaar fukki weer bokkul. bokkul donc gën naa yomb nga faj ko 6 mois 6 mois yoo xamante ne xëy na ñaar ñeenti comprimé lañ lay jox wala juróom wala juróom-benn selon sa poids alors su fekkee da war a dem si faju 9 mois wala 20 mois. mën nga naan ba ay 15 17 comprimés par jour. par jour waaw parce que doomu jàngoro bi dafa ës. Mm-hmm. il faut ñu wut garab yu bëri yoo xamante ne fu nekk lañ koy dóor pour moom ñu mën ko rey. Mm-hmm. Ah, donc faj boobu moo gën a compliqué ak ah, conséquence aussi yu mu mën a ànd ak yépp mm-hmm. waaw donc vraiment moo tax ñu ngi invité nit yi ah, képp koo xamante ne nee nañ la da am feebar tuberculose da nga ko war a faj juróom-benn weer. nii lañ ko war a fajee nga topp ndigalu waa kër docteur mhm. te xamante ni sa jàmm rek lañ la bëggal ah, soo toppee luñ la wax incha allah di nga si wér ak jàmm sans complication mhm. et puis euh, li si nekk aussi mooy ñi nga xam ne dañ koo traîner pendant des années dañuy dem ba yàq seen ay xëtër da nekk ay insuffisance euh, respiratoire chronique mhm. bu ñu doxee tuuti sonn dootuñu mën def sport donc vraiment day yàq seen seen vie mhm. ah te te malheureusement euh, nu ñu koy tàmmu waxee yenn malade ci parfois yaa ngi bañ a faju tey mais bés dinañ ñëw dinañ la indi di nga faju mhm. ndax di nga sonn sonn boo xam ne waa kër ga duñu la bàyyi foofu et malheureusement ñi bañ ñëpp nag instant yu leen di indi day fekk complications yi dégâts yu mu def ci yaram bi déjà bëri na même bu lay faj ngay wér di nga wér ba pare yóbbaale loo xamante ne daa doxantoog moom sa des desitu àdduna mhm. ah mooy dootoo mën a daw dootoo mën a dox fu sore dootoo day ci limité voilà mhm. sa activité physique yëpp limité mhm. ah, donc def naa loolu ku nekk si ñun ku responsable war na ko moytu voilà euh, docteur euh, suivre naa la bu baax euh, am na ñoo xamante ne dañuy am maladie bi mais du duñu farataal di dem fii ji ci bërëbu fajukaay yi mu mel ni jàngoro bi di tuberculose ba léegi askan wi dañu jàpp ne boo ko amee da ngay rus ñu bokk ci maladie ñuy ñu dubee ay maladie de la honte tey jii eh, ndaxam sensibilisation bi dafa des wala dañu nekk ci benn zone boo xamante ne tabu yi wala pesanteurs sociaux yi ba léegi bàyyiwuñu. Mhm. waaw loolu am na am na faatu te booy xool sax loolu moo xaw a mettil feebar bi nag moo xaw a mettil xeex bi ah ñii nëbbatu waaw parce que tamit ba léegi dafa am nag ñoo xam ne ñi ngi joxoñ ñi am feebar tuberculose. et c' est c' est très malheureux. waaw dañuy stigmatiser discriminer mm-hmm. joxoñ daal ah mm-hmm. bodd yi te lu ñu war a moytu la si si si jamono bi ñu toll. waaw surtout feebar yu mel ni tuberculose soo ko mm-hmm. amee déjà psychologiquement danga soxla nit ñi jàppale la accompagner la ah te te ki ngay ki sentir ni da nga ko nar a boddi du ñëw ni la dama feebar danger bi mooy yow mi nekk ak moom. ñu waroon la jox garab yi nga xamante ne dina la protéger boo moytuwul doo si jot. Mhm. ndax dina nëbbatu. ah donc vraiment ñu ñuy invité population bi ñu bàyyi loolu tuberculose feebar la na ñëpp te wax naa nuñ koy wàllante ah. mhm. si air bi la te ñun ñëppay noyyi air bi. Mhm. ku nekk si ñun xëy na noyyi nga ko ba pare dawaa développé wul ndax danga ko deful defoo feebar bi ndax sa yaram xëy na fi mu toll am na kàttan. ah te mën na yeewu suba sa kàttan wàññeeku. Mhm. ah ndax bëri na fi feebar yoo xamante ni day wàññi kàttan benn exemple rek laay cité mooy jabet te jabet kër goo dugg fekk ka fa. ah donc jabet rek mën na déclencher xëy na yow wan noon nga doomu jàngoro bi wala nooyu nga ko y des années sa yaram maîtriser ko mais nga am jabet yaram bi dootu ko mën a maîtriser nga def feebar bi. Mhm. pour dire ko jommul kenn. képp ku nekk mën na def feebaru tuberculose. Mhm. donc de vraiment infection la comme comme comme yeneen infection yi dañ lay faj garab yi ñu lay fajee sax antibiotique la tudd. Hmm? Mhm. te te nit ñi ku si soj nit damay dem pharmacie jëndi antibiotique. donc loolu def naa loolu rek. ñu def automédication. waaw pour dire en fait lu may wax sax mooy. Euh, banaliser nañ jël antibiotique parce que infection la. Mhm. ki dem sa pharmacie ba naan ko jaay ma antibiotique damaa soñ. Mhm. Euh, war na mën a banaliser antibiotique mooy faj tuberculose. Mhm. ah ñoom ñëpp ay doomu jàngoro lañ yoo xam ne danga nga nooy mu dugg sa xëtër. Ah, donc euh, war nañ mën a comprendre que bon ku nekk war na mën a def tuberculose te ku ko am ñu jàppale la. accompagner la soutenir la. Ah, nga def sa traitement ni mu waree wàllante bi mën na wàññeeku. parce que nëbbatu li ñu seetlu. si euh, pratique quotidienne mooy ñii nëbbatu lu si ëpp ñoom ñooy jékki-jékki arrêté ndax dañuy nëbbatu nëbbatu nëbbatu ba si yàgg dootuñu mënante nëbbatu mhm. ñu sentir ni xaw nañ tane ñu arrêté mhm. ndax garab bi dafa efficace efficace boo xamante ne soo commencé traité wu ay 15 jours rek dangay commencé sa yaram ni mu kii saqat bi bàyyi yaram bi commencé ñëw appétit bi di ñëw donc si tu n'es pas assez sensibilisé da ngay jékki nga arrêté mhm. rawatina kii làqatu xam nga kii làqatu di dem hôpital day gaaw a bëgg arrêté. Mhm. pour nit yi bañ ko seen ci buntu hôpital ba. Mhm. donc vraiment ñi ngi ñaax askan bi ñu jàppale. Mhm. Euh, ñi feebar bàyyi di leen joxoñ ak di leen boddi ah jarul ku am feebaru tuberculose yooyu si suñu ginnaaw la ah, ñu lay ber sa lekk si biir kër gi amu sens parce que wax nañ ko si jaww ji lañ koy wàllante donc mën nga ber nit lu may reetaanee parfois yenn malaat yi da gis si kër bu buñ ne dañ may may ma ne ko sooy sooy sooy lekk fooy toog mu ne waa kër gi dañuy toog ne fii lay toog ma ne si salle bi yéen ñëpp ci benn salle bi ñu ni waaw ma ne amul sens. mais loolu apparemment c'est ancré ci bopp nit yu bëri. parce que peut-être information bi moo esseegul si nit ñi. ni mu waree même programme mu ngi def jéego yu mag. jéem a communiquer le plus possible. ah communication proximité. am na ay communautaire acteurs communautaires yuy def porte à di jéem a sensibiliser nit ñi di organiser ay causeries mm-hmm. ñu ngi wax ci rajo yi comme ni ñu nekkee di ko def nii tey mm-hmm. ah, ñu ngi koy def euh, pour jéem a indil nit ñi information parce que man jàpp naa ni kuy boddi kenn koo bokkal c'est parce que xëy na dangaa comprendre lépp mm-hmm. ndax suñ la expliquer du jar ngay boddi ndax yaa ngi ber ci lekk ba pare toog ak moom ci même salle muy saqat di ticheli di sànni ci air ngeen bokk bi ngeen di noyyi yi ci biir salle bi donc loolu amul sens nit kooku dangeen bokk benn bool bi ngeen lekk donc vraiment nañu nañu moytu loolu parce que euh, xaw na jafeel xeex bi mhm. waaw jafeel na ko bu baax làqatu boobu jafeel na ko xëy na ñi ngi wax sax parce que booy seet ci lu ñuy xaar ci ci malaat malade tuberculeux par année suñu xaaree ñett ñaar la ñuy génne kenn ki gisuñu ko mhm. xëy na làqatu boobu mën na waral loolu Hmm, neewuñu moom la mais bokk na si li ko waral. Mm-hmm. Ah, donc vraiment ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw ñu jàppandoo ñun ñëpp ci xeex bi ah, ah, d'autant plus que fi mu nekk nii mois wu tuberculose lañ nekk mooy mois de mars le 24 mars. Mm-hmm. chaque année si la ñuy. Euh, Euh, fësal xeexu tuberculose ci àdduna bi yëpp mm-hmm. te organisation mondiale de la santé moo ko def fépp ci dëkku àdduna yi dañuy fësal xeexu tuberculose mm-hmm. ah, donc vraiment ñu ngi ñu ngi lancer un appel fort ndax dañ ni fi mu nekk nii dañoo bëgg jeexal tuberculose ci àdduna d'ici deux mille trente mm-hmm. ou trente cinq te euh, études yu ñu def yëpp dafa wone euh, waa kër docteur rek mënuñu ko jeexal il faut que ñëpp jàpp ci il faut que ñëpp mobiliser wu pour ñu mën a jeexal feebaru tuberculose ndax pour loolu soxla nañ xarañte waa kër docteur waaye soxla nañ xaalis aussi financement mhm. pour mën a dérouler plan d'action yi ñuy tëral yépp mhm. soxla nañ communication te kenn mënul communiqué sans la communauté mhm. ah mooy nit yi askan bi communication bi pour ñoom la te ñoom ñoo ko war a def donc xeex bi xeexu askan bi la du xeexu système de santé bi donc c'est tout la communauté qui doit se mobiliser public privé ah, partenaire technique financier ah leader communautaire yi ah société civile en tout cas ñëpp ñëpp ci war a jàpp mm-hmm. donc c'est l'affaire de tous vraiment mm-hmm. et c'est pourquoi on, on dit euh, vraiment il faut qu'on se mobilise ñu mobiliser ñu ñëpp ñu àndandoo mm-hmm. xeex tuberculose et sauver ñi nga xamante ni seen bakkan da si nar a rot. d'accord euh, mu mel ni nag euh, ci lépp li nga xamante ne moom moo soxal nii di interrompre seen traitement euh, ñu leen di tuppee ay ay ay ay perdu de vue tey boo ñu doon wax ñooñu ñu ñuy tuppee ay perdu de vue seen cas tey lan nga ñu ci mën a wax. waaw mooy li ma doon wax léegi rek. Mm-hmm. lu ñu njëkk ragal déjà mooy complication yi. yi mm-hmm. hmm? ma doon wax. Euh, parce que di faju te eggale woo ko doo wér mm. doo wérul sa bakkat mën na dem di nga continuer di wàlle di continuer di développe yokk forme résistante yi nga xam ne danoon naqaree faj te mm. cher mm-hmm. Mm-hmm. ndax garab yooyu tamit lu ma waxul léegi nii ay millions lay jar mm-hmm. fu nga xamante ni fee peut-être dañoo soxla vingt mille pour faj kenn six mille six mois bële on a besoin presque de deux millions pour faj benn nit. sans mhm. compter bilan yeeg li mu ànd ak yëpp. pour dire que c'est c'est cher déjà pour l'État du Sénégal. Mhm. ah ñoo xam te ni ñëpp xam nañ suñu dëkk bëriwul doole torop mhm. et moo tax perte de vue yooyu dafa am programme yu ñu tëral déjà un pour prévenir ko. ah empêcher vraiment maladies yi ñuy arrêter. Mm. loolu li ko gën a lal mooy communication dañuy waxtaan ak maladies yi sensibiliser leen. bu ñu tegee ni danga am tuberculose rek kiy joxe garab yi commencé na communication te kooku noonu aussi am na ñu koy de mooy acteurs communautaires yi parce que xeex bi comme j'ai dit du du système de santé bi kese mm. te loolu euh, dëkk yëpp comprendre nañ ko def na ay at léegi te il faut que askan bi si boppam jàpp si. approprié wu ko. wu ko ñëw jàppale waa kër docteur ñu xeex ko. Mhm. Hmm, mooy acteur communautaire yi yu plan international yi di liggéey ak yeneen yu nekk si biir district sanitaire yi. Mhm. Ah, di liggéey ak waa système de santé bi pour ñuy prévenir déjà première chose bu ñu la joxee rendez-vous gisuñu la rek dañuy lancer système. ma mhm. ah, appel téléphonique. Euh, suñ la jotul ñu dem seeti la sa kër et lu si ëpp nag acteurs communautaires yi ñooy dem seeti la pour indi la mhm. ah ñu bañ la perdre de vue mhm. nga bañ a nekk perdu de vue mhm. ah donc moom la ñuy waxee relance des irréguliers relance des rendez-vous manqués ah déjà loolu la njëkk teg parce que dañu jàpp ni waruñu xool nit ki ba mu dem bu ñu gisee ne mu ngi commencé di bàyyeeku rek dañ ko war a xëccaat hmm? donc il y tout un programme d'accompagnement de soutien au traitement loolu lañ koy woowee sax soutien au traitement mooy assistance psychosociale mm. ah, de dem nañ si ba ñi nga xamante ni dañoo seetlu dañu am problème sax pour pass pour ñëw si système de santé bi dañ leen di jox as mm. jàppale leen pour ñuy mën di faj di faj fay oto pour mën a ñëw jël seen traitement mm-hmm. ñi nga xamante ni ñu lekk bu baax am na ñu leen jox aussi ay paquet alimentaire appui nutritionnel ah te loolu yëpp c'est l'état du Sénégal avec l'appui de ses partenaires. Mhm. ñoom ñoo koy def. Mhm. donc pour dire que dañoo tëral programme yooyu yëpp vraiment pour que. képp koo xamante ni dem nañ ci laboratoire ñu ne da nga am tuberculose bu ñu la xasee ba ñu ne nii lépp luy sa problème ñu jéem a xool la si accompagner yow sa waa kër pour nga mën a faju ba wér. parce que tout ce nous intéresse nous mooy soo xasee ba dugg ci biir programme bi rek balaa nga ciy génn ñu ni wér nga mhm. waaw donc moo moo indi loolu yëpp jàppale ma malade yi nga xam ne dañoo am difficulté euh, pour faj pour lekk pour ñëw ci système euh, structure de santé bi ñuy joxe garab yeek yooyu ñu jox leen paas ak yooyu mhm. waaw pour mhm. dire donc vraiment am na programme pour éviter perte de vue yooyu parce que perte de vue yi ak décès yi ma doon wax léegi aussi vraiment yooyu moom euh, Sénégal dafa jóg pour mu mu wàññeeku su mënul jeex si at yi ñu nekk sax au moins ñu wàññi ko bu baax a baax a baax. Mm-hmm. te ñu ngi si tànk yi. d'accord docteur mu mel ni combat bi dafa dekk ci yomb mais euh, c'est un combat noble mais tamit c'est un combat assez difficile. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax man nee naa tuberculose feebar bu yàgg la. Mm. dafa yàgg ba nit ñi foog ne amatul. pour dire. plus de cent quarante ans. Mm-hmm. ñu nekk si di wax si benn feebar. Mm-hmm. ba dem nañ ba am na yu bees yu ñëw moom lañ ñoom la ñuy tudd nit ñi moom lañu gën a ragal. moom mm-hmm. la gën gën alors que moo tax ma nit bu ñu fàtte ne mu fii. ah te yëpp lu ko wënd mooy feebar bi xeex ko dafa jafe. te li ko jafeel mooy wax nañ ko léegi. le fait ñuy boddi nit ñi làqatu bi noonu yombalu ko tamit. Hmm? waaw parce que nit ñi dañuy làqatu dañuy rag ruusa wax dama am tuberculose ndax soo ko waxee nit ñi commencé la daw. Hmm? te te loolu vraiment ay comportement la yoo xam ne war na nekk suñu ginnaaw. Mhm. Ah, ñu ngi invité population bi vraiment ñu changer par rapport à ça ñu comprendre tuberculose feebar la dañ koy faj dañ siy wér. Mhm. voilà mhm. et mën na doj dab ku nekk mën na la dal. ku nekk mën na la dal. bu la dalul mën na dal sa doom. wala sa yaay wala sa papa wala sa conjoint ah donc loolu bu ko ku nekk jàppee rek. boo gisee ku feebar da nga koy jàppale mu wér ndax mu bañ a continuer di wàlle mm. ah, pense que loolu mooy gros défi bi mm-hmm. génne malaat yi faj leen pour ñu bañ a continuer di wàlle mm-hmm. mm. euh, euh, docteur am na leneen aussi lu ñu war a wax euh, feebar bi am na day law am na doole mais mu mel ni dafa am ay région yoo xamante ne ñoom la gën a ñoom lay gën a laal lu ci mel ni peut-être Dakar Touba wala yenn région yi et pourquoi ci région yëpp mu am singularité wala particularité manifesté wu ñu koy gën a nemmeeku ci ay région fii ci dëkk bi. waaw Fatou. waaw euh, analyse yu ñu def si dëkk bi wane na. Mhm. am na juróom benn région sur les quatorze. yu nekk ci Sénégal fa la ëppee. Mm. fa la ëppee te région yooyu région de Dakar la. Diourbel. Mm. Thiès Saint-Louis Kaolack Ziguinchor. Mhm. te dara wunduwu ko lu weesu boo seetloo région yooyu ñu wax. Mm. mooy région yi ëpp nit ci Sénégal. d'accord te dara waralu ko lu weesu ki am feebar bi day walle donc plus ngay am ay nit. plus wàllante bi di gën a graaw. Mhm. donc plus cas yi di gën a yokku. Mhm, mhm. loolu rek la loolu rek moo ko expliqué. parce que région yooyu ñoo ëpp nit donc wàllante bi fa la ëppee. soo fa amee benn cas li ñu fay wàll si nit ak yu ñuy wàll si yeneen région bokkul. parce que xoolal Dakar rek. ni ñu dundee la dëkkuwaay bi la promiscuité bi la surpeuplement bi donc di nga dem ay quartier yoo xam ne day nga dugg si ay euh, kër yoo xamante ne benn néeg mën na am vingt personnes. Mm-hmm. donc imaginel benn néeg ñaar fukki nit nekk ci biir bu fekkee benn malade mu ngi ci seen biir te malade boobu mën na wàll dix personnes. loolu rek moo ko moo ko moo ko expliqué du leneen. Mm-hmm. ah population c'est des régions les plus peuplées. Mm. donc naturellement fa la ñuy gën a génnee kaay. Mm-hmm. ndax wàllante bi fa la ëppee. donc défi bi mooy nañ génne malade yi teel. faj leen ni ñu leen war a fajee ñu arrêté wàllante bi mhm. c'est ça le gros défi mhm. te programme bi si programme bu euh, si plan bu mel noonu la nekk mhm. vraiment accélérer la détection des cas de tuberculose pour un traitement de qualité pour guérir tout le monde lool mooy suñu suñu suñu liñ de mire fi ñu nekk nii waa si si tànk yooyu lañ nekk gaaw a génne cas yi faj leen ñu wér arrêté wàllante bi loolu moo ñuy dimbale ñu jeexal tuberculose Euh, mbokku auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di daral ki nga xamante ne moom moo di docteur Yacine Mar Diop docteur Yacine Mar Diop nekk responsable du bureau prise en charge bu programme national de lutte contre la tuberculose ñoom sax dañuy def rek euh, benn benn benn benn benn benn retour wala dañuy daal di ñëw ci li nga xamante ne moom moo di eh, seen bëccëg bi ngeen di màggal le 24 mars àdduna wërngal këpp dañuy xeex lépp lu jëm ci wàllum euh, tuberculose Sénégal nag musul des ginnaaw docteur ba mu waral sax am na ay activité yi ngeen di amal ci Bambey mais laata loolu rek dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom moo di choix bi tey ci seen euh, activité yi ngeen choisir comme thème euh, investir pour mettre fin à la tuberculose pour sauver des vies xam naa nag auditeurs yi dañuy jéggal rek ngir tënk tënk ko ci wolof moom dina nekk lu xaw a compliqué à moins que docteur mën ma ci gindi tey bu ñu doon wax ci li nga xamante ne moom moo di choix wu bi lan moo sabab choix wu bi les docteurs. waa thème bi comme noo ko waxee. dina compliqué. waa dinañ jéem peut-être ñu jàppale ñu kiiwul français tuuti. Uh-huh. ñu essayé ñun tam si suñu wolof bu dëng bi. Euh, ñu wax leen euh, investir. pour mettre fin à la tuberculose sauver des vies dañu wax investir parce que dañoo soxla financement surtout mhm. c'est le premier défi oui parce que lu tax xeexu tuberculose bi jafe tam xaalis bi doyul pour ñu def li ñu bëgg def yépp hmm. donc moo tax du ñuy tàllal loxo euh, ñépp parce que bu ñuy xool euh, xeex tuberculose instant bi euh, état Sénégal mooy dugal ak partenaires yi am nañ ñaari partenaires yu mag Fonds mondiale ak Action Damienne mhm. ñoom ñooy jàppale surtout en matière de dugal xaalis pour xeex tuberculose ndax lu ñu fi wax yépp formation ñiy faj hmm, euh, saytu faj bi nu muy demee mhm. garab yi laboratoire yi pour ñu malade bi bañ a fay am na kuy fay loolu war nañ ko comprendre mhm. parce que yëf yi du ñëw rek tegu noonu c'est parce que dafa am ñuy fayal malade bi mooy état Sénégal euh, accompagné par ses partenaires comme le Fonds mondial. Mhm. ñu gis ni aussi ñun dëkk boo xamante ne développement bi demeewul noonu économiquement dëgëruñu comme ay États-Unis ay yooyu boo xam ne état mën na yenu lépp. Mhm. moo tax ñu ni investir ñuy tàllal loxo ah, vraiment ñi nekk ci biir dëkk bi tey yor moyen yoo xam ne mën nañ jàppale xeex tuberculose. et vraiment ñoo leen di lancer appel bu bu bu mag a mag a mag ah te te bu ñu naan ñi nekk si dëkk bi bu ñu yaakaar ne nag entrepreneur yu mag a mag yi borom entreprise ku nekk sa dërëm sa ñaar dërëm mën na jëriñ. Hmm. Hmm? bu dul investissement xaalis sax investissement personnel volontariat. Hmm. nga jóg pour communiquer ah, sensibiliser boo gisee ko am feebar bi nga jàppale ko. ah accompagner ko yooyu yëpp ci investissement la bokk. Mm. parce que lu ñu naan rek participation communautaire ku nekk li nga mën ngay def mais li nga mën indi ko ñëpp boole li ñu mën ah ñu ñu dajale bu ko defee ñu am doole pour mën a faagaagal doomu jàngoro bi. Mm-hmm. mu mën fi jógee bàyyi di rey nit ñi. Mm-hmm. Ah, loolu moo indi thème bi vraiment investir. Euh, dans la lutte contre la tuberculose pour sauver des vies te wax mm-hmm. nañ ko pourquoi ñu ne sauver des vies ki yor doomu jàngoro tuberculose bi nekk ci askan bi suñ ko génnewul xamuñu ni dafa feebar mun ñu ko faj donc premier defi bi mooy ñu def lépp pour ko kooku mën na ñëw ñu xam ne dafa am tuberculose te bis bu ñu xamee ne am na tuberculose tam ñu am garab yu doy pour mën ko faj ni ñu ko waree am euh, euh, intrant wu laboratoire yu doy pour mën a saytu ni ñu koy fajee baax na wala baaxul. Mm-hmm. donc vraiment loolu mooy mooy thème bi. Mm-hmm. Euh, te thème bi bon. organisation mondiale de la santé moo ko conseillé dëkk yi parce que chaque année dafay am thème. Mhm. chaque année day am tem thème ren bi nag loolu la. Mhm. Ah, nañu àndandoo booloo ku nekk lu nga am nga indi ko. Mhm. ñu jàppandoo. ah dóorandoo xeex jàngoroy tuberculose jëlee ko fi mu bàyyi di rey nii ñi. Mm-hmm. waaw loolu la. Mm-hmm. justement par rapport par rapport seen euh, programme national de lutte bi est-ce que en dehors de cette journée mondiale bi ñu célébrer le 24 mars de chaque année da ngeen di farataal di def euh, ngir askan bi gën a xam jàngoro bi bien sûr. ay journée porte ouverte ay sensibilisation donc euh, waaw ay journée porte ouverte ay sensibilisation bon pour askan wi gën a xam le ne jàngoro bi mu ngi fii euh, comme ni nga ko war xamee ndax sensibilisation wala information du doy mais en dehors de cette journée est-ce que am ngeen yeneen yeneen yeneen hmm. programme au cours donc de toute l'année parce que programme national lutte contre la tuberculose dafay liggéey at bi yëpp. Mhm. te ci biir programme bi am na bureau communication. Mm. moom moo chargé wu ci loolu. en collaboration ak région médicale yi ak district sanitaire yi mhm. ak acteurs communautaires yu may wax mhm. ah parce que vraiment c'est tout un système mhm. euh, dafa jóge ci kaw ministère de la santé mais wàcc bi ci suufu suuf fi gën a sore si système de santé bi mooy système communautaire mm. donc am na programme de communication déjà communautaire mm. parce que dañoo jàpp il faut mu am communication de proximité mm-hmm. mm. mooy acteurs communautaires yi def porte à porte bi ma doon wax dugg ci kër yi sensibiliser def ay causerie ah mobilisation parfois ñu def animation ci quartier yeeg yooyu xëy na am na si ñuy déglu ñoo xam ne mës nañu vivre lu mel noonu. Mm-hmm. et puis euh, rajo communautaire yeeg yëpp dañuy def ay émissions. ah les rajo à grande audience télévision à grande audience yi mel na ay RTS ay TFM mm mm-hmm. ay waaw dañ si def euh, euh, ay ay émissions. donc y a plan dafa am plan. carrément pour cinq ans. Mm-hmm. de communication sur la tuberculose. Mm-hmm. pour gën a xamal askan bi lan mooy doomu jàngoro tuberculose. Mm-hmm. ak nan la ñuy def pour moytu ko ah ak xeex bi. Euh, naka la ñu soxlawee ñëpp ñëw jàpp si. waaw mhm. euh, loolu moom lu ñuy def toute l'année la. Mhm. donc journée mondiale bi c'est juste àndandoo euh, si àdduna bi yëpp. Ah, ñëpp xeexandoo tuberculose bi waxandoo ko si benn jour. lool rek moo moo wund journée mondiale. Mhm. mais xeex bi moom c'est si toute l'année. et il faut dire depuis 1985 le programme existe. au niveau du Sénégal depuis 85 mu ngi def communication sur la tuberculose. léeg-léeg ngeen gis ay bande annonce si mbedd bi ay affiches. yu ñuy wax waxu tuberculose am na ay temps ci CAR yi la mhm. ah, am na yenn association de lutte des malades tuberculeux anciens malades tuberculeux mhm. yoo xam te ne dañ doon def ay ay action mhm. ci biir système transport bi ah, tuddee ko vigilance transport di dugg ci CAR yi di sensibiliser di wax nit ñi taf leen mouchoir tak leen masque ah, ubbi leen fenêtre yi donc vraiment sensibilisation boobu moom même bëri na activité yu ñuy mëne par rapport à ça voilà euh, pour édition bi ngeen amal ay programme ci Bambey tey particulièrement particularité dëkk bi ak lan moo nar nekk euh, euh, ci matière comme comme comme célébration. waa Bambey dañ ko dañ ko jël comme euh, district bu war a accueillir ren. Mhm. fee kii bi journée bi. Hmm, dañ koy def nag waaw loolu yàgg la ci programme bi. Mhm. day am ay critères bien définis. Mhm. yu ñuy teg. ñu nit ren de journée bi tel dëkk lañ koy dem defee ji ah te bu ñu tel dëkk lañ koy defee yeneen région yeeg ñëppay ñëw participer. Mhm. et n'empêche dañuy jox région yi ku nekk à ton niveau aussi nga. célébrer waa pour nga wax sensibiliser parce que dinañ retenir aussi journée mondiale tuberculose c'est une activité communautaire waaw ah, vraiment premier objectif bi mooy mobiliser communauté bi c'est-à-dire xëcc nit ñi ñu ñëw jàpp ci xeexum tuberculose mhm. loolu mooy premier objectif journée mhm. mondiale mhm. mooy jour la boo xam ne dañoo war a wax sa kaw a kaw a kaw waxu tuberculose ñëpp dégg ko xëcc ñëpp ñu ñëw ànd ci xeex c'est le principal objectif mm -hmm. donc Bambey mooy mooy abriter ren donc euh, su la présidence du ministère ministre de la santé monsieur Ablaye Diouf Sarr. Mhm. moom mooy mooy war a présider cérémonie bi. Mhm. mais am na yeneen activité euh, yu ah, yu comme waaw parallèle du am Bambey euh, am si yeneen région yi ñu leen woowe des journées régionales ci bi GMT journée mondiale tuberculose mhm. waa am na ay journées régional aussi région bu nekk dafay organiser waaw d'accord ba xam dina am ay lu ñuy duppee ay genre dépistage wala ñu mën a ñenn ñi ñu def ay diagnostic waaw waaw prévu au menu si si déjà depuis euh, semaine passée wala début de semaine mm. depuis début semaine bi rajo mobile PNT bi mu ngi foofu di def dépistage de masse ah, parce que loolu aussi benn la si lu programme bi teg depuis plusieurs années maintenant euh, ñi nga xamante ni dañoo xalaat ni yor nañ feebar bi te ñëwuñu ñu yóbbu rajo bi pour jéem leen génne ah donc dañuy dem cibler benn zone te loolu district bi moo naan demal leen ma zone bi parce que ki nekk foofu nekk autorité sanitaire moo gën a xam euh, kii moom euh, li xew si si si ko xam voilà donc moom moo naan zone bi bëgg naa ngeen dem yóbbul ma fa rajo bi ndax seetlu nañ temps yi vraiment si registre laboratoire wala registre traitement tuberculose cas yi bëri na fa mm-hmm. donc dem leen fii ngeen donc bu ko defee rajo bi dem Ah, ñu jéem a génne ñi nga xamante ne ñu ngi sentir parfois seen yaram mu ngi lii mais demuñu. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. xam nga loolu nag moom c'est caractéristique du sénégalais. Mm-hmm. ñun balaa ñu dem hôpital rek dañoo sonn. moo tax ñu ni ñi nga xamante ni ñu ngi hésité pour dem nañu yóbbu rajo mobile bi. benn rajo numérique la rajo de haute kii la facture. waaw yoo xamante ne dafa dafa sensible mën na si image yi ñu xool Euh, kii dafa war a am tuberculose wala suñu gisee ay image yoo xamante ne dafa xalaat loo ne tuberculose ñuy jël prélèvement yi yóbbu ci laboratoire pour confirmer est-ce que tuberculose la wala su dee moom ñu boole laa ñiy faj ñu faj la mm-hmm. donc dépistage moom mu ngi am toute l'année mm-hmm. ah, xaarul GMT journée mondiale tuberculose pour ñu def ko toute l'année mm-hmm. donc plan d'action la boo xamante ne presque chaque kii mu ngi sillonné tout le Sénégal région yëpp nag ah, région yëpp les quatorze régions ñi ngi recevoir radio mobile euh, bu PNP pour ñu mën a def dépistage actif de la tuberculose. d'accord ndax euh, à quelques heures di seen célébration bi ndax am nañ ay retour favorable waaw xam nga instant bi ñu ngi sur le terrain. Mm-hmm. di def activité yi donc rapport yi génnagul. Mm-hmm. donc su activité bi pare si la ñuy def rapport fekk résultat laboratoire yeeg yépp génn si la naan suñu campagne bii de defal nañu rajo. tant de personnes tant de cas lañ si am. Mhm. waaw léegi xanaa dañuy xaar taaxirlu suñu paree ñoom dinañ wax lan lañ génne mhm. waaw euh, ñu tëjee ci li nga xamante ne moom moo di traitement bi rek c'est basé sur euh, traitement antibiotique mais en dehors de ça euh, vaccin bi di BCG moom rek la ñu certifié que guddi yu ñu toll moom moo koy aar ndax c'est toujours efficace. waaw euh, vaccin BCG moom lañuy def ba léegi à la naissance. parce mhm. moo fi nekk. Mhm. Euh, suma question bu ñuy recevoir mooy lan moo tax nit yi di def tuberculose alors que vacciné nañ leen. Mhm. BCG. waaw léegi lu ñuy jàpp mooy. BCG moom njëriñam fi mu toll nii. mooy empêcher xale yu ndaw yi mooy ñu am moins de cinq ans ñu def forme grave yi forme yu mooy disséminé yi Euh, mooy forme bu nga xam ne day def infection généralisée. Mhm. wala forme bu nga xam ne da lay defal méningite loolu lay empêcher chez les enfants ah qui moins de cinq ans. Mhm. Euh, moo tax ñu naan xale bi su juddoo rek ci salle d'accouchement ba sax lañ ko war a vacciner ndax gis nañ xale su juddoo rek diw am na doom ñëppay daw ñëw. Mhm. parce que gan la. gan moom ñëpp a yàqamti teeru ko. te doo xam si ñiy ñëw di ko téye di ñaan di tofli di uf ndax am na ko am doomu jàngoro bi wala moo tax nu mu gën a teelee ñu vacciner ko surtout balaa ngénte bi mm-hmm. on insiste beaucoup sur ça balaa ngénte bi ndax jour ngénte bi moom ñëpp xam nañ nu mu demee yaay bi mu ngi entre salon sañsee photo wu donc bébé bi boo moytuwul nii lañ koy paasante ku nekk mm-hmm. téye téye téye téye mm-hmm. ah, te loolu nag danger bi yëpp foofu la nekk mais euh, si orientation actuelle bu ñu nekk bu ñuy wax éliminer la tuberculose recherche moom ñu ngi koy accélérer. Mhm. pour mën a génne vaccin bu gën a efficace BCG. Mhm. te bu ñu fàttalikoo tuuti rek temps yële si kaw war na mat ay ñetti weer ak yooyu ñu ngi naan président Macky Sall ah ak mhm. institut Pasteur ñu ngi wax waxu vaccin. ba wax nañ si vaccin tuberculose ñu war ko def recherche bi fii si Sénégal. et loolu aussi bon kii bu mag la. ah c' est c' est un honneur pour le Sénégal donc parce que bu ñu imaginer tey bu ñu trouver bassin bi fii si Sénégal loolu pas bu mag la. Mm-hmm. jéego bu mag a mag la si si xeex tuberculose si dëkk bi. Mm-hmm. donc vraiment ñu ñu ñu ñaan askan bi surtout yaay yi ñi nga xam ni ñoo jege euh, ñiy soog a judd. ñu veiller à ce ñu defal leen seen bassin BCG. Mm-hmm. Ah, parce que c' est vrai tuberculose ku ko yor ñu faj la nga wér. mais am na yenn forme moom il faut tout faire pour moytu ko mhm. mooy yi ma wax léegi mhm. forme généralisée forme méningite boobu mhm. boobu baaxul parce que même suñ la fajee lu si ëpp boo moytuwul di am ay complications yooyu traîner toute ta vie moom ñëpp xam baaxul mu nekk tuberculose wala beneen parce que soo si génnee mën nga am traîner ay complications waa séquelles yi donc vraiment ñu ngi ñaan ñu ñu taxaw. Mm-hmm. et ça c' est valable pour tuberculose ak yeneen feebar yi xale bu juddu nañ góorgóorlu ñu defal ko vaccin moom yëpp. d' waxtaan wi am na solo mais docteur Yacine Mar mu mel ni li ñu cëraloon ci waxtu wi yegg nañ ca. waaw maa ngi leen remercier bu baax nag euh, ki faatu parce que si opportunité bi ngeen ñu may ñu wax si si feebaru tuberculose. Mm-hmm. waaw vraiment ñu ñaaxaat askan bi. ku si yëg sa yaram da nga tayal sa appétit wàññeeku na sa yaram day tàng guddi gi surtout sa yaram day ñaq surtout guddi gi nga boole si nag saqat bi oxo oxo oxo mhm. nga gis na mu ngi traîner def na di jours 15 jours demal kër docteur ñu seet baadu doomu jàngoro tuberculose mhm. di dalal xel yi soo demee foofu ñu lay defal test doo fay amul fay c'est gratuit état vraiment góorgóorlu na ba pour ñu defal la test bi xool na da nga feebar doo fay dara. Mm-hmm. bu ñu demee ba gis ni feebar bi daf la dal dañ lay faj doo fay dara. Mm. garab yiñ lay fajee efficace na ñi lay faj xam nañ li ñuy def ndax formé nañ leen. et puis euh, tout un, système de soutien d'accompagnement pour le malade. Mm-hmm. avec l'appui des acteurs communautaires. Mm-hmm. ñu jàppale la. Mm-hmm. àndandoog yow. nga jël sa garab normalement faj wu wér. lu am solo la. soo ko deful it da ngay lor sa bopp lor askan bi. ndax lor sa bopp. mu ngi commencé si am feebar war koo mën a faj fajoo ko ba mu indi complication yoo xamante ni mën na laa tere dund dund bu normal su dee sa bakkan rotu si ndax xam nañ feebar ku ko fajul premier risque bi mooy mu yóbbu sa bakkan mhm. wala bu dul loolu nga jël feebar bu bàyyi ko di ko wasaare muy law fi nga dëkk fi ngay liggéeyi ñi ngay naanandool ataaya ñi ngay lii def naa vraiment euh, quelqu'un de responsable war na mën a moytu lu mel noonu mhm. waaw donc vraiment on lance un appel à la responsabilité de tous mhm. et que tout le monde sa sente concerné euh, nekkul ni tuberculose ñële lay dal du dal mën na la dal ndax si jaww ji lañ koy wàllante mhm. air bi ngay noyyi mhm. si la doomu jàngoro bi di jaar lii mel na lu covid lu lay tax a takk masque tuberculose noonu lañ koy wàllante mhm. exactement donc loo ragal ci covid rek ragal ko si covid corona defe naa la nit yi di gën a wax loo ragal ci corona rek ragal ko ci tuberculose ndax li ngay ragal naan kii am na ko mu ngi ticheli sama kaw mu nga saqar sama kaw même chose mhm. c'est la même chose mhm. euh, ba si vraiment ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp si lutte bi mhm. koo xamante ne amoo xaalis boo si dugal nga dugal si sa doole dugal si sa engagement communiqué et puis surtout moytu boddi nit yi euh, koo gis mu am ko nga jàppale ko mu faju bu wér waaw man daal vraiment c'est c'est le message que je parce que mooy suñu thème ren bi on investit et comme je ku nekk lu nga am ngay investir ki am xaalis mu dugal ku am dooleem mu dugal ku am xalaatam mu dugal mais l' essentiel mooy ñun ñëpp nañu jàppandoo xàccandoo doorandoo jëlee fi feebarum tuberculose. Mm-hmm. Euh, kàddu yi am na solo ni ñu doon déglu certainement bu fekkente ne amoon nañu yenn après après appréhension yi par rapport ak euh, jàngoro bi di tuberculose yi ci mel ni Bernicci wala di ko boddi mu mel ni docteur Yacine Mar Diop indi na ci ay explication yu am solo lool yaakaar ne rek nit ñu doon déglu dinañ ci jël beaucoup plus de considé euh, considération mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amoon amoon mbégte ak bànneex doon dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Yacine Mar Diop docteur Yacine Mar Diop nekk responsable du bureau prise en charge du programme national de lutte contre la tuberculose SOS euh, santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité